depuis lors à chaque fois euh, boo génnee dañ ko si tudd nangoo réagir nga bàyyi ba euh, euh, ba heure bi lan la. waaw xam nga lan lan la. xam nga mhm. sénégalais. bu mhm. ko nee bëgguma lii ci loolu lay bëgg à chaque fois. Mhm. di ci dem ak yoon di ci wax pour foog nga ne mën na laa déstabiliser wala mën na laa laal sama doom. sama doom la bu ma koy ëmb sénégalais yi xamuñu ko. bu ma koy wëssin sénégalais yi xamuñu ko ba mu toll mu toll sénégalais xamuñu ko. sama doom dama lay laaj boobu ba tey ak yéen journaliste yi am ngeen foo leen ko gis wala am ngeen foo ko dégg ba ci réseaux sociaux yi gis ngeen ko ci da ngeen xam ci lu mu ne kenn xamul ko xam nga kon boobu damaa bëgg man sama ko ciy génn man la dañ ma wax lu leen neex dañ ma jëf lu leen neex bu ma yéexee tamit léegi laay door a jël léegi mayatuma kenn ku ma mën ci doon journaliste dama posé ci question sama doom waxatuma la ka xam nit di toog di wax di laaj fa sama doom ku ko def ku ne loo gis man rawatuma ci dara. ok waaw. yow ak Nabou Dash da ngeen am ay contentieux dafa mel ni parce ko da nga ko dencoon sa biir xol foofu. non bu question contentieux xam nga du problème. Mhm. nga benn moom dafa fay dañ ko écrasé wu raw benn benn ko écrasé wu mu kenn dégg foofu beneen bi mooy ki ko yónni ki ko yónni moom doomu ndeyam Paul Kilesi bu amee fit wala mu am sañ-sañ man dama koo défi. defal ko laay bi saf sàpp du ma du ma du ma nëbbali muy Gabriel Kane bu amee fit wala sañ-sañ man maa wax ak moom na doon jigéen astafurlah man de xam naa sa jigéen laa moom nag jigéenam wóoru ma mais ma rek ba ma pare bu amee fit mbaa mu am sañ-sañ jigéen dëgg-dëgg ndax wóoru ma nag sama jigéenam wóoru ba sama wóoru ma ndax moom la wala déet na génn jàkkaarloo moom bi ma dalee wax ba tey wóoru ma jarul muy dem di làqatu ci ay ginnaaw nit wala pour nit ñooñu nañ ko waxal man ki muy waxal nii maa ko mën quarante mille fois. kii duma moromam xam nga tey fa waas. Mm-hmm. du ma moromam. ok kon da nga jàpp parce que moo la xam nga moo làkk si ginnaaw la Oustaz xam nga naka la xam nga Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. Gabriel Kane boo ko laajee koo bañ mën la Cheikh Yérim Seck xam nga livre Cheikh Yérim Seck bi Cheikh Yérim Seck dafa cee bind ne moom dafa jëloon Adji Raby Sarr di ko commercé loolu metti ko am na yeneen la yoo xam ne bëgguma ko wax vie privée wu jàmbur man dama koo taxaw langal ko génne ay mbootam yëpp ak nu mu doon jëli jeex xaalis ak nu mu ko doon jëlee ci turu Adji Raby Sarr ak la mu doon jox Adji Raby Sarr par weer ak nu mu demee lépp ma sula naan tonton parce que xam na ma du ma moroom dama koy écraser en une te nag ay dossiers yu lourd laa yor waaye nag kooku bu ragalee wax na moom Nabou Dash mu ne moom mooy pël pël géegu ñeeg mu fekk bi xale bu pare bi nga xamante ne daa jël jomam ko naan ba mun na man lay man lay man lay tendance boobu ko defati naan gàddeekat naa assumé dañoo jàkkaarloo moom boobu tey nangu la jàkkaarloo jarul muy nëbbatu amul aussi Fatmata est euh, ce que jaroon na euh, yow na bu Dash euh, ngeen nekk si réseaux sociaux yi ku ci nekk di ci yàkkante parce que tout le temps su sànq ni yéen coow li muy yow di moom yéen ñaar ñëpp seen yoon newu ci lan moo waral tey yàkkante bi ngeen xaar ba heure bii nii ku nekk di yàkkal sa moroom comme boog lu waay lu waay xam yàq ko sa morom. waaye xam nga Sénégal moom day nekk problème amuñu ko toll ku fay lañ. Nabou Dash même bu ma. ji euh, peut-être comme da nga nekkoon say tas amaan nga bu amaan nga borom kër. jërul ngay dugg ci yenn détails est-ce que tu l'as woo je l'ai jamais vu muy woo ko man yàlla yàlla la dëgg boo gisee wax ci laa ñoo jël coowal asu wax ci asu joon maam seen waxi moo laa moo gën wax kii nu mu tëdd kii ku bëgguma wax ju ñaay koo nekk États-Unis borom benn bi rek ki ne États-Unis. influenceur mooy borom borom benn bi rek ki yor benn kii. benn doon bi ne États-Unis. ah ok allo. Tunkara Tunkara la wax. ni ñooñu génnee di wax. yan doon. doon la waaw léegi doñu boobu moo ci la. sama sama kilifa dafay moo tax bàyyi naa am problème. léegi moom ñooñu bu ñu waxee. ku nekk di wax ba ci laaj. assi assuré bi dafa yor dafa yor plateforme hmm. parce que day jënd ci Facebook et tout. daañu bu déranger sama émission bi. dégg nga dafa nek dafa nekk dafa yor plateforme ba mu mënoon wona a bind ci plateforme né arrêté yeen ñi di wax yoonu wu ma leen. sama problème sama problème war ka sama vie privée dugal ma ci kenn. ku ma gis bi nga wax ci di nga xam. assi que yoon bu waxoon loolu bu gol wax ci fay est ce que du bind lool wa ila mu yone wala ni muy toogee ci télé ma ci matinal. mu ne leen carrément arrêté sa ko fa yéen ñëpp laa wax

naan kaan lii kon xanaa man kon bu ma saagaan day ba Mouhamadou xanaa ma waane. Ah, dama la waaw mais yow yaa def live. yow yaa doon def live. oui damay def leer la. bu hmm. dee bàyyi leen di yàq sama yéen journaliste eh, bay man gis nga asu ma ngaan ci ba ma yàgg. c'est la première fois man li may bu dul politique ma defante man du ma bëgg a dugg ci vie privée wu jàpp sama kenn mosul a gis ma dugg ci vie privée wu jàpp mm. mais dafa fekk ay nit ñu ciy bi ma gisee nit ñi di laaj di wax ma génn du ko wa def conseil donte nag woowu ma ko su ma waxee loolu saaguma ko xasuma ko li jëntuwu ma du ñu xamante li jëntuwu ma loolu di problème dama doon wax rek parce que daf man nag man jigéen réseaux sociaux laa def sama àdduna yëpp sama réseaux sociaux doom jooyu jëkkëraayu ni woowu ko dama koy wax kon da li nee live wax ci gaa gaa sëy bi sëy bu bees bi wax na sëy yërim sekk nii tanaa di wax comprendre yooyu noonu noonu

mosuma koo woo Nabou man dinaa ko woo mu yor samay message te Nabou du ko génne Nabou dafa ma mayoon 24 heures xam nga xam nga du ma soxna si. Mhm. ma gën a bàyyi mhm. man ko defee rek mooy am nga problème. Mhm. te man ma bu fekkoon ne damay aw ma dara de. même bu ma jaralee man ma jël sama bopp. jaay sama bopp. pour uniquement ma am ci way information. dama lay am seen information bu ma génne lay écraser. gis nañ ni woo na la appel mais nangoo ko parce que da nga ba pare toog ne ko Nabou Dash sànq yaa ma doon lan nga ma doon doyee mais yow moo tax jëloo bee appel bi mu lan nga ma doon doyee déedéet. lu nga ko wax. daf ma woo ma gis appel. ñu ma ko def lu jub heure jaruma ko. d' accord man munoo gëral ci réseaux sociaux. dafa raay ba raay moom dafa jël tax parce que man buy laaj damaa dugg ci page dama koo aimé. def cloche de notification. Mhm. Mhm. parce que man bu may geerax yow man du ma du ma déglu du ma dugg ay extrait man damay toog déglu la ba nga jeex. dama mhm. dama dama dugg raay fa mu pare may solu parce que dama ñu ma ne xaaral ma jàppale ko ma wut sama armoire yàlla may ma ci xaritu mbubb la ma def ko du bleu sur du bleu ma ne naa jàkkaarloo moom. ma fi may toog avant ma tàllaaj ma gis mu woo ma ne ko dangaa jublu ba la

maa ngi dawal fu ma toll nii. dëgg la yaay nam daf la wax pour nga bàyyi coow. waaw ma coupé ko man ko may coupé ma wax jox nga man la yaay nam ma ne ko ma sama doom dama laa yàgg si xale bu baax nii ma ne ko wax ma ne ko mère coupé bi nangu ma ko wax du ma wax moom xam na day ansi ou pas. mais lan moo tax yow bëggoo cooli fay. xam nga tax bëgguma cooli fay. Mhm. dafa ne ma may na ma kaara 24 heures. Mhm. maa génn si. mais jàll na. wuy ma lu jàll na. 24 heures waaw waaye dafa wax dafa am ay preuve preuve dégg nga li ma la. dégg naa bu baax. dégg nga dafa ne moom bu duggee ci géej gi géej gi day jeex am naa problème. Mhm. te man moom gërëm du jeex. Mhm. moom moo moom moo ma déclaré guerre. d'accord ah de damay Poutine. Mhm. ku ma déclaré guerre ku ne bu jigéen bu bu demee bu jigéen bu may woo jarul xaw ma ndax moom la ne wala du ma. waaye dina waajuram bu jigéen bi daa ma ñu biir dafa tàkk. sa dalul ci moom après. man naa jël pare waaye woo ma ci xeexu réseaux sociaux waxatuma la man ku ma xamal ma xamal la yor say dossier nga may woo ci géej réseaux sociaux ah déedéet la. ok su rek nga xam. ok Fouta. Euh, tuuti rebondir ci. mbir ma xew parce que dañoo ne dama gis ay nit ñoo xam ne dañoo ko bëgg koo politiser bëgg cee yàq der doomu aadama bëgg cee yàq sama der dama mun na yàq sama der bëgg cee waxaale lu Cheikh Yérim Seck moom moo ko loolu muy dama ne amul nag te loolu gisuma fu ma ko waxee li ma jot a wax ak fu ma commencé ak Astou loolu laa bëgg a dëgtal sénégalais yi ko ba pare parce mu ngi woon fépp bu mën see ñëw indi ci ay leer waaw lii laa ko wax. am na loo xamante ne dangay moytu moytu bu am na am solo bu nangu du dugg ci oto yi yàqu yi amul benn amul en fait amul dalay yàq.

சிறுமியர் बिल्कुल भी फिट फंगाओ फिट फंगाना में सुनने को लगता है गाना लगा लगा है फिट फंगाना फिट फिट फिट फंगाना सारा जमाल में गाना से लगा लगा है हम तेरा है ये फिर एक भी नहीं अरे एप्रिल अच्छा फिर ये नहीं Thank you. sutura sutura bokk sutura ak amul ñëpp ak lu mën ci am seen diggante la xew ba tey kenn jëgu sa yéen sekk ma sa wax lu ñaaw wala jëntee promotion moom mu nangu sa yéen sekk gën koo bari sa yéen sekk war nangu ma gën man lii laay wax asu marché yi revient sur terre dara jël ko fi te li nga def nii baaxu sa sa seen bu bees nit ki mënoo mënoo am seen bu bees bu ko ubbee coow ni ku nekk ñaan yàlla sëy boobu jaar génn nga am nga toog ñeenti weer ak fukki fan. c'est a wax man moom lu ma wax dama ko assuré man kenn xamee ne man wax dellu ci ginnaaw damay live sama live man la engagé nit tey bu ñëw ut ubbi gémmiñam wax la mu wax moom la engagé. mais li ma metti mooy Fouta Tampi dafa ne Astou amul ndaw di wax ba tey sànq am ku ne frère la woo dama ko commencé di wax parce que man asu joon noonu asu a a wax bu nekkee moo ko parce que moo laa neen asoo ko yónni te moo laa man rek moom parce que sax moo laa la tudd ndax moo laa ay wax moom bu ko du ma sa di ko tontu. mais est ce que kon jaroon na ngeen laaj. parce moo laa. ay eh, waay Samba waaw pourtant bu ma topp dama laaj yéen rek xanaa man man ma ba ba baat seen dëkk bi na dama ciy wax ba mu neex. du wax ndax lu ma koy duggale. Mm-hmm. du ma wax lu ma koy enfoncé ndax jigéen laa. Uh-huh. muy jigéen te rakk la. Mm-hmm. maa ko mag fuuf. Mm-hmm. rakk la kon boobu dama koy wax li nga xam ne mooy sama xel bu gàtt. amaana mu dégg a dégg du ma ko wax ne bu ma ko war a ko si moom. maa ngi ci def ku amaat position ñëwaat. mais aussi euh, Fatmata euh, tey en tant que jigéen. Euh, sànq la Abou Sall wax rek si loolu lay ñëwaat euh, parce que da ngaa commencé di développer mu dagg la ba duggaat encore tey ci beneen sujet waa ji ba mu ko waxee si sa live naan daggoo ko. mais mënoon nga ko woon jël après live bi nga waxtaan ak moom parce que man Nabou Dash euh, euh, la muy wax yëpp moom dafa doon défendre ki nga xamante ne ni euh, moom mooy Astou Dione parce que tey ñu bëri ñoom dañoo jël tool jox ko parce que parce que nee nañu yow en tant ko waroon woon défendre ki nga xamante ne ni moom mooy Astou Dione mais naroo woon bàyyi waa ji di wax genre yooyu noonu wax mhm. benn